àdduna si yëpp a koy séentu ñu ngi ko ubbil buntu kër yi buntu néeg yi ak xol yi alayhi salaatu waxoon naa ci ay bind yonent bi alayhi salaam wasalaam la bu ñëw fas yéene def visite de proximité professeur ji porte à porte villa par villa waaye am na kër yoo xam ne bu ñu moytuwut bu ñëwoon du dugg ca kër ga ndax moom mas naa ñëw këram këru boppam soxnaam suñuy wax Aysatu suñu yaay ja moo aye woon yonent bi ñëw taxaw ci buntu néeg bi taxaw ba yàgg lool moo ñëm àndaloon taxaw ba yàgg lool ba sunu yaay Aysatu jaaxle génn di ko gàttandu laaj ko nag lu xew mu wax ko li ko tee dugg si mooy nataal yii nekk ci sa rido bi te doon nataal yu nit defe ci loxoom moomatee dugg si su ne Aysa dindi rido ba xotti nataal ya mu dóor a dugg si ma ne kon su ñëwoon tey bari na kër yoo xam ne bu ñu ne ko entré ci buntu kër gi lay taxaw bari na néeg yoo xam ne buñ ne ko entré ci buntu néeg ba lay taxaw te alayhi ñëw sa kër nga ne ko entré mu bañ dugg loola lu yéeme la loolu lu yéeme la kon li doon yoon mooy kenn ku ne ci ñun jël ñëwam googu ba nga xam ne bu ñëwee du fekk sa kër yu muy bañ ak yooya nu man di demee du leen bañ su ko defee dugg sa kër yomb ko waaw loolu lu amaam solo la fi mu nekk nii àdduna su ngeen gisee nii mu mel ba noppi muy ñëw te azizun ali ma anittum sunu borom waxoon na ci suurtu yaasin li ko jaaxal mooy ngeen baal ma ci baat boobu lu tax waa pénc mi ñépp jox loxo seytaan lu tax ba tollu jamono yoo xam ne li leen def loo ñu def ko moo gën a yomb li leen muhammad sallallahu alayhi wa sallam di defloo waaw fi ne télé boo ubbi la ci yonent ba am lam ca amut a ko ëpp te lum ci amul lu nekk seytaane ko moom <clears throat> taalal tele rek nga toog fa ba vingt trois heures wala boog ba zéro heure del siwaat nga xool vingt quatre yooyu lan la ci unité bi moom ci tele ba ca rajo ba ca xew wa waaw ca ndaje ma nga seet lu ci yonent bi moom sallallahu alayhi wa sallam léeg-léeg nga dem sax ci sunu xew yi nga xam ne moom lañ tudd ay xewi diine nga gis ne yonent bi ak iblis dañ koo séddoo waaw mu tax tey lu ne mën naa am Serigne Cheikh ko waxoon waxam jooju nee na wax na ko ay at yàgg nee na kenn faaliwu ko mu ne waaye baax na mu ne wonee ginnaaw yooyu mu doon wax tàmbali am waaw moo di jinne walla cheytaane bu nu jàngee suuratu naas yi saar wu saar wu soriwut xaw ma nag nogay mokkal na comme déet waaye si yéenul naa ca tele ba ko ko mokkalut qul a'uudu bi rabbi naas dafa am ci biir saar bi ku tudd alxannaas xul a'uuzu bi rabbi naas dafa am ci biir saar bi ku yàlla tuddee xannaas xannaas mooy koo xam ne du nangu defet mooy koo xam ne kii bët bu set mu ñëw ni nga xam dañaan xeexu njaago du jeex waaye xeexu xannaas du jeex xannaas yu waswisu mooy liggéeyam xannaas yu waswisu mooy liggéeyam yu waswisu fu mu koy defee fii sudóori moo tax jàpp ne penc mi war naa jag ndaxte nangam penc mi jagut ndax loole yu wisu moo koy liggéey wala boog alxannaas moo koy liggéey mbokk yi penc mi loola taxoon mag ñi doon woote bëgg bu nit ñi ñëwee ñu ñu tooyal seeni xol ba jox leen caabi ju ko tëj ba iblis ak i gaayam duñ ca mën a dugg waaw iblis ak i gaayam duñ ca mën a dugg kon alxannaas moomu ku ko bàyyee sa xol mu liggéey ca yu was wisu waaw jax-jaxal ko ba nga xam ne duutoo nangu mbaax ak ku baax jax-jaxal ko ba nga xam ne duutoo duutoo bañ euh, ku baaxut waaw maanaam doo xam foo bokk doo xam foo bokk ndax léegi penc mi day liggéey ci lu ñuy wax euh, nouvel ordre mondial di liggéey ci li ñuy wax mondialisation nga xam ne lu waa àdduna ne baax na ak nu mën a mel nga jàpp ne kon baax na yooyu dem nag ba léegi résultat yi tàmbalee génn waaw rey gi bari tabarkalla pénc bi jaxasoo kenn su koo gis kenn mësu koo gis yéen ñëpp yéen ngi topp journaliste bi nga xam ne moom lañu rey ci Turquie ak façon reyin waag waaw enquête yaag fañ ca toll nan ko reyeeg yu deme ni ko yooyu penc mi lëj lool penc mooma it lëj lool waaw loolu nag la yonent bi di fàcc sallallahu alayhi wa sallam moo tax su ma saane jege si maam Cheikh Alxaaji Malik woote mboolem ñi nga xam ne ñoom la jàngaloon ak ñi formé ak seenu njaboot ñoom ñépp ñu ànd fekk ko Tiwaawan fekk ko Tiwaawan mu indi ca gàmm ga lu ñu tuddee burdu waaw bëgg bu nit ñëwee mu tooyal seen xol yi bu noppee tëj ko kànnaar ba seytaane du mën a dugg ca xol ya liggéey na ci liggéey bu rëy radiallahu taala anhu bàyyi waa pénc mi ñu continuer di ko liggéey waaw bàyyi waa pénc mi ñu continuer di ko liggéey waaw danay wax ne ñaari téere moom bu seeni boroom ñëwoon senegaal danañ jox loxo Sénégalais yi muy burdu ak laxdar yu barke bi ci waa Sénégal def ña ko bindoon defuñu ko ci waaw tabaarakallah tey ci guddi incha allah la waa waaw la waa burdu yi war a song burdub juróom-ñeenteel waaw buntub juróom-ñeenteel ndax moom Cheikh Hadj Malick daf ko programme ci fukki fan ndax burdu fukki bunt la di joxoñ bëgg xam-xam ak sàkku xam-xam mu tax guddi gu ñëwee mu jox leen benn bind waaw guddi gu ñëwee mu joxe benn bind waaw ba baa fukki guddi yi di jeex waaw guddi gu njëkk ga dafa joxe woon li arab yi daan tuddee xësal te ku ko mënut mënoo koo way xësal mooy woy jigéen mbaab gent mbaa sàngara waaw loolu lañ doon def way jigéen mbaab gent mbaa sàngara sunu mag ñi def ko ba noppi tuubal xësal waaw dañ koo tuubal tuubal ko ba nga xam ne ñi daan def shi'r daañ xam ne kii man na waaye duñ ca dégg ci biir xësal joojee xësali omarul xaysi mbaa ñoom antarak ñooñu moo tax nga dégg mu ne ayaa daadu way xakke nabbi yi waaw tabarkàlla mu nga kële ne suñ maam maam suñ tubaab ne hammat Suleymaan bi sarfi ziyaati waaw ku ne andi ca bunt boobu la borom laxdar yu ngeen baal ma borom bur du njëkk a wax nga xam ne ca lay jàngale euh, topp bakkan ak nit ñu war a mel suñu digganteeg bakkan ak bu nu tollee di béjjaaw nu nu war a def ñi béjjaawagul fu nu war a nekk bunt bu ama am solo ba mu ca noppee ñaar lu bunt bi mu indi ko ci moytu topp bakkan waaw moytu topp bakkan ndax bakkan dafa yëruwut bakkan yëruwut waaw nee bakkan ñaari ku ko topp fa muy jëm ak yow baaxut mu ne moo xale ñooyam dañ leen di feral lu ko mooy ñu nàmp ba am sikkim mu ngoog ñetteelu bunt bi boo masaana ñëw Tiwaawan fekk fa maam Cheikh Al Hadj Malick mu ñëw ci taggal la yonent ba alayhi salaam imaamul Busiri ca buntum ñetteel ba waaw tabaarkàlla tagg yonent bi ba noppi wax ne ku koy woote woo ku ne te gisuñu lañuy la lam doon nekk gisuñu ko ci yow tooñ nga ko waaw tooñ nga ko tey penc mi bi ñu ko seddoo li ci iblis moom wax naa la ko mu ëpp li ci yonent bi moom te ñépp a ngi naan ko ay jullit lañu moo tax mu ne salamtu sunnata man ahya zalaama waaw da dem ci barab ñuy maye jigéen di ko wut di ko may jëkkër bés boobu ni mu réye muy xaar xutba bu ñu tibbee ci alxuraan ak sunna su yonent beeg waxi mag ñu baax ñi waaye xale bu jigéen bi yoonam nekkul ci diine ji du du du islaam mii si xewam woowu waaye da koy da koy da koy xaw nan laa bëgg waxe baat bi professeur <laughs> da koy tubaabisé ñu lay maye au nga léttu sol sa lu fat yàccu te jot ñëw toog ca jàkka ja ñu xutba la déedéet nga ne ca salon ba te jigéen léegi deux fois la ñu dem salon wala troit ndax bu xëyee day dem salon ba booru di mu dem bu ngoonee buñ koy maye mu dem te bëgg nag xew mi nekk xewum diine yow nga nekkub jullit waaw loolu bunt boobu day tagg yonent bi alayhi salaatu salaam canam meloon mu bëgg ñu xam ko ñun tam dog yoon wa ndax ñu mel na meloon ma ne ko jigéen kooku ñuy mayee tem nekk ca salon ba lu tax xewam wi islamisé wu ko xanaa toppadoo tubaab yi niñ koy defee bay sa culture waaw bàyyi sa culture am na ci gone yi fi ne gone koy nàmp tàmbalee bañ yaayam su màggee boole ko yaayam jafe léeg-léeg nga gis ne gone guy góor mën naa topp gone gu jigéen mu gënal ko yaayam papam kee mën naa topp kee mu gënal ko yaayam waaw dégg ngeen xale ba tabaski ga jotoon mu jaay xarum papaam xottil ndawam si muy àndal buy baali <laughs> waaw jaay xaru xaru tabaski papaam pour xottil ndaw si muy àndal buy baali seetal lool ma ne jigéen day am doom ca ñoom soxna njaay ca maternité Medina waaw jigéen day am doom tëdd ci lal bi di nàmpal doom ji ndax ngénteeguñ waaw mu nàmpal samedi ngeen baal ma mu nàmpal vendredi samedi dimanche di nàmpal ba alxames jot ñu war koo ngénte wala boog tey la ngénte li moom mu xëy dem ca salon ba changé kanamam gi changé boppam bi changé colam gi ba bu jëlee gone gi di ko nàmpal gone gi day dute est-ce que kii may nàmpal nii mooy maman mi ma doon nampal ca maternité ba est-ce que mooy maman mi ma doon nampal ci cinq jours yi ñu génn jàpp jàpp set réponse mooy du moom du moom waaw parce que yaayam jee dafa naturel woon waaye kii koy nàmpal nii euh, c'est une femme fabriquée par les beauty cosmétiques <laughs> allahu akbar xale bi tàmbali xamul yaayam parce que ñaari yaay fi nekk yaay jee avant ngénte li yaay ji pendant ngénte li ak yaay ji après ngénte li avant pendant et après ngénte li mbokk yi bu ñuy tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañoo bëgg ñu bëgg ko ñu transhumé jóge kër seytaane waa boppi neen lañuy def moo gënal seetaane waa muur boppi muur say cër muur say cër li ñuy def moo gënal yonent bi waa boppi neen lañuy def ki sol lu fat lim def moo gënal yonent bi ki sol lu ki sol lu yaraax lim def moo gënal seytaane lim def lim def moo gënal seytaane nu seet nag li ñuy defal seytaane ak li ñuy defal yonent bi lu ci ëpp ala kulli xaal bunt boobu bu ama am solo tabarkàlla lépp ñu def ko ci alayhi salaatu wasalaam buntum ñeenteel bi ah mu def ko ca juddoom ba abaana mawliduhu an tibi ansurihi ndeysaan an tibi ansurihi ansurihi yaa tiiba mubtada min huwa muxtata waaw waaw mu def ko ci judd ba alayhi salaatu wassalaam jàngale ci ñoo xam ne ku ko dégg fa tosu te bëgg yonent bi bu juróomeel ba mu def ko fi mujisaatihi yi yonent bi man te waa adduna lottu ci li yonent bi man te waa àdduna lottu ci yee ko ca yàlla defal ak yem ca defal boppam yee ko ca yàlla defal mooy toog ak garab dox wut si la toog ak garab dox wut si la ngay ŋab ngay téye ci ëkk di xutba ba toxal sa minbar ëkk ga di ni ba nit ñi dégg ko doxaloo garab waxloo mbëtt yooyu mooy yi ko yi ko yàlla defal yi mu defal boppam nag wax naa ko ci bind yi weesu moom la mam Cheikh Alxaaji Maalik doon wax min kulli wasfin xamidin xaaza xaaza afala tafdilin rajaul baraya waaw rajaul baraya lisan wala sawfa yutika rabbuka fatarda waaw foofu al imam al busayri lim fi li fi yonent bi am ci ay mucjisa mu tàmbalee ko ci daat li daawatihi l ashjaaru saajidatan wooteem bi garab yi wuy si nan ko tamshi ilayhi ala saaqin bila qadami garab gaa ngi dox wut si ko te solutu dàll ndax garab ga ab yel la am waaye amul pied je pense que noonu la cet tet buntu boobu li ci al imaam wax defar ne pénc mi waaw tabarkàlla waaye Serigne Cheikh nee na mojisa yonent bi yépp a ko neex ñu ne ko waaw mu ne waaye mojisam ci jikko moo ko gën a neex waaw dana yonent bi mojisaatam yépp neex na waaye mujjisaam ci jikko mujjisaatam ci jikko ndax yonent bi alayhi salaatu salaam kaana xuluquhul quraan du toog ci place di jëw kenn du yàq derub kenn déncalul kenn merum biir añaanewul kenn soxorewul kenn waaw yaree du ko wutoon xamadi wutoon waxuma laa muy réew téexatutoon waaw téexatutoon du suul jëf rëyutoon daawul bàkku daawul fëgg dënam daawul wax saxaaba ya di leen detteel mbaa mu leen di xeeb mukk buntu boobu moom ci ku ko topp lu mën a defar jikko la bu njëkk nag mag ñi sens bi ñu amoon mooy lépp lu ñu dégg ca gàmm ga bu nu ñibbee tàmbali bu fekkee nekkuñ ca woon buñ ca nekkoon bu ñibbee gën a laxas seen digg buntu boobu am na lool am na solo lool te moo tax téere bi tuuti na waaye mat na séminaire mat na colloque international bunt par bunt bunt par bunt waaw buñ ko masaana jël tiim ko bunt bu ne bu tojee rek jëriñ penc mi jërë jëf waxtaan wi jeexut dañu suñu koor yëkkatee di gàttanu gan gi di ko séentu tabarakallaahu seet ba xam bu ñëwee ren lu muy indi yaakaar naa ren bu ñëwee day sàkk ku ko ku ko parrainé naa <laughs> parrainage moo xew alayhi salaatu salaam bu ñëwee daañ ci ñëw ci li mu li mu ñëwee ren jërë ngeen jëf sunu mbokk yi xëy ci xibaar yi ñu ngi nii taxaw yor seen i këyit bëgg leen firiñ fàncal xibaar ta firiñ fàncalul ko ci wolof ñaa leen yàlla ñoom ak yéen ak suñu technicien bii ak suñu sponsor yi yàlla yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir ci def ci suñuy poste dara wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.